li ci yéene yi ak Mbaye Dione dal leen ak jàmm procès Ousmane Sonko ma mbay ñaa ñu war koo àtte tey jii foofee ca tribunal bu Ndakaaru ubbil yéene kaay bi di vox populi mu di ñu xamal ne moom usmaan Sonko def na ab déclaration démb di xamle ne dina wuy ji ca boobule procès moom Ousmane Sonko teg ca ni Macky Sall ak ñi mu àndal seen tappale yi dina jeex ci nii wala ca naa yéene bi di yor yor ne moom jiitul xam xamle na ni bépp juge bu ko sañ a taqal rek ba teg ko ay daan ci bile procès ab noonam pire nga témoin bi ne moom Ousmane Sonko Sonko woona Sénégalais yépp ca tribunal ba tey ngir ñu ñëw fekk ci procès ba yéenekaay bii di L'Observateur ne atum mi bu ñu amul sens mooy gën a tàng fuuf atum 2011 ndax opposition bi ñu gis ñoo gën a takku ba woon ca atum 2011 te saa suñu xëyee rek ñu ngi dégg ay waxu procès diffamation tëj ak tijji kenn ci ñi ñu tëj nag ci jamono ji démb ay naataangoom di sàkku rek ngir ñu tijji ko yéenekaay bii di L'As ne rappeur yi démb ñu nga woon ca Ndakaaru di amal doxu ñaxtu Gueye ñu gën koo xam ci turu nit dof te jamono ji rek ñu téye ko ca kaso ga ñoom ñuy sàkku rek ngir ñu génne ko foofee mu nekk ka génn ca la mu nekkoon di xalifa sàll doonoon président Yewwi Askan Wi moom nag jébbale na lenge ya démb yéenekaay bi di Les ko moo ñu xamal lu ni mel la yéenekaay bi di enquête ne moom xalifa Sall xotti na aw yoonam dajale ay ñoñam rek ngir waajal élection 2024 ubbil yéenekaay bi di La Tribune mu dañu xamal ne ca Sacré-Cœur benn agresseur moo fa doon agressé benn waay yor paaka waaja nangu paaka ba ba blessé ñu jël di yóbbu hôpital la dañu yegg rek agresseur ba ñak ba kanam ca yoon wa lolu lañu naan japp katu jaan jaana koy mujje bo boobale agresseur agression mujjina ko mujjé